ni ñu leen ko waxee woon léegi lettre bi ñu doon exposé mooy lettre bi ñu yóbbu présidence ak lettre bi ñu yóbbu primature boole ko ak mémorandum bi nga xam ne joxoon nañ ko coalition Diomaye président joxoon ko yeneen candidat yëpp moom la vice président Adama Mboup doon faram fàcce defaale ay quelques leeral yoo xam ne nekkoon na ay lënt lëntal ay laaj mbedd mi te jote wuñu woon ak ñoom pour mën koo leeral ñu di ko jaajëfal bu baax ci leeral yu am solo yooyu li ci mat a ràññee rek ñun ñëpp ñu xamandoo ko mooy li mu wax ànd sàmm jikko yi interpellé nañ ko ay yoon junj ne ko ci biir ànd mu jikko yi du kuréel goo xam ne ku jóg rek ne ko jógal nga wax mu wax kuréel gu responsable boole ay association yu wuute boole ay mouvement boole ay euh, mouvement religieuse ak ñoo xam ne sax ay mouvement politique la ñu xëy na waaw ñoo ñëpp boo leen boolee dara xew tey ci tàkku saan timis ñu ne la wax ci xanaa au moins da ngeen def benn réunion de bureau sax léegi nag ñooñu di ñu doon wax loolu séentu woon nañ ñi ñi ëpp ci ñoom waxuñu ñëpp mais ñi ëpp ci ñoom bu njëkk bi ñu yëkkatee komba bi sawaruñ ci woon lan moo tax tey ñu sawar ci am nañu ñoom benn objectif bu ñu viser te yaakaar nañ ne mën nañoo jaaree ci ñun pour jot objectif boobu ànd sàmm jikko yi du nangu lool du nangu ku ko manipuler su waxam jotee dina wax waaye su waxum jotul du wax bi mu ñoree itam liggéey bi ñu doon def ci suuf muy liggéey bu responsable jébbal nañ ko ñi nga xam ne ñoo ko mën a doxal coow li lu mu bare bare bare bare nguur gi lañu ñu amal wax président de la république jox nañ ko lettre premier ministre bi jox nañ ko lettre état bi fi majorité bi fi nekkoon noonu la ñu daan def ak ñoom dañu daan dem wax ak ñoom ba ñu tëñu ñu door a wax ak askan mais ñun régime bii génn mësuñoo xëy rek di wootey manifestation ci mbedd comme nii nit ñu bëgg ñu defee ko lu ngeen di xaar jóg leen déedéet association bi ay vers 2016 la créé ko 2016 kañ la ñu tàmbali marché yi presque 2020 ñaata at daanaka cinq ans plus waaw nguur gi toog matugul deux mois ñu ne lu ngeen di xaar c'est-à-dire kon ñun duñu ay sax responsable fa ñu daan jaar ak ñële bind leen jox leen foofu leen jaar ñii ñii lankala guñu la ñu ñëwee lankaloon au contraire ñoom ñooñu digagum ne bu ñu toogee daa ñu ko voté toog nañu waaye amuñu majorité assemblée nationale ñi ngi leen di xaar bis bu ñu amee majorité assemblée nationale jàpp nañ ne lii ñu ñu digg ne loi dina jàll dina jàll ñun tamit ñi ngi leen ci xaar waxaatuñ ci ak kenn sëñ Adama wax na ko léegi gis nañu ay nit yu jógagum wax na ñi ngi waxtaan ak ànd sàmm jikko yeeg Jamra pour ñu dugal benn proposition de loi loolu amul gis nañu journal bi di L'Obs tey loolu la titré am na benn député Abdou Mbacké Bara wax na ne mi ngi jéem a liggéey ak ànd sàmm jikko yi ak Jamra pour ñu dugalaat ko loi bi loolu amul c'est foo ñun waxuñoo moom xamuñu ko sax loi bi ñu ñu diggoon ne danañ ko voté ñu ngi leen di déglu ma nga ca seeni loxo deuxième fois bi ñu ko dugal biram Souleye Diop ak Mamadou Lamine Diallo ñoo ko yóbbu ba léegi loi ba ma nga bureau assemblée mais ñun kon léegi nan lañ leen fi mën a bàyyee dem di ko rocc di ko joxe ñeneen kon loolu muy wax na àddina yëpp xam ne amul gisuñu ko dégguñu ko waxuñu ko au contraire moom dafa toog ci télévision yàq sunu der nee na loi bi ñoom ñoo ko yëkkati woon pour manipuler di ko politiquer pour daanee ko régime bi te waxul dëgg moom loi bi liggéeyu ci dara musuñu woote rassemblement mu ñëw ci musuñu woote confrance de presse mu ñëw ci yëguñu benn soutien bu mu def ci ñun kon mënul toog di diaboliser loi boo xam ne xalif généraux yëpp ci adhéré askan wi yëpp adhéré ci mu toog di wax naan waaw dañ ko doon politiquer et encore maa ngi woo président sax buñ ci dugg c'est grave waaw dëgg la sëñ Adama nee na sax dugaloon na loxoom ci ñu buggoon a voté loi bi waaye comme moom nee na politique a taxoon mu def mais ñun politique guñu politique guñu kuy politique terewuñ la bu voté jotee ñëwal nga voteel ñu waaye nag doo ñu utiliser pour di politique kon loi bi teguñu ko ci loxoom joxuñu ko kenn majorité bi fi nekk ñoo ko bloqué ah ñoom nag bu leen neexee suba suba su leen neexee nañ ko génn ñu voté ko loolu amuñ ci benn problème. waaye nag bu ñu wax ne ànd sàmm jikko yee ngi liggéey ak jiw ak jiw ak diw di ko def xeeti manipulation yooyu nan ñu ci dindi ba nu set wicc bi ci des wax na ko léegi Jean Mélenchon ànd sàmm jikko yi dafay condamné apologie homosexualité bi mu def ci réew mi loolu loolu dañ ko mas a bañ dañu mas a gëm ne ak ngóor jigéen kenn du ko kañ parce que du lu baax le fait que mu koy kañ loolu ñu ngi koy condamné fermement loolu tamit jàpp nañ ne yabaate la jàpp nañ ne xeeb xeeb askan wi la dëgg la su dee moom loolu la gëm amul problème mais na ko waxee ji dëkkam su dee day tontu d'accord waaye su paree ñun tamit war nañoo def benn réplique wane ne waxam yooyu mu wax condamné nañ ko te ñaawlu nañ ko lool te ñi ngi ñaan nag nguur gi ñu taxaw ci ak ferme ba yu mel nii bu mu amati tontu ba ca am tontu ba mooy ñu dugalal ñu loi bi voté ko jàpp nañ ne tontu ba bu amee. nga xam ne affaire bi léegi c'est illégal ku fi ñëw def apologie loi mooy wax ak yow waaye du ñun ñooy toog di la ton tontooti kon boobu tamit bëggoon nañ ko leeralaat leneen li ci des mooy euh, mooy mooy euh, point yi nga xam ne lim na ko ci mémorandum bi ndax dafa bëri ñuy wax ne yéen xanaa góor jigéen rek góor jigéen rek ngeen di xeex déedéet wax na léegi code de la famille bi dañ ko war a xoola am na ci ay problème yu bëri wax nañ ne peine de mort bi daa war a dellu si wax nañ ne médias yi nii ñu ciy defee nii di di di promouvoir ak mbon di yàq jikko lu nekk di fa jaar mais loolu dañ ko war a seetaat CNRA dañ fa war a teg koo xamante ne bëtu diine la fay yor di xool lii jàll te mën a yàq jikko yi ñu dindi ko yi yëpp ci suñuy proposition la bokk su ko defee yooyu tamit askan wi dañ koy bàyyi xel ñu xam ne ñun concentré wuñ ci benn mbir dëgg la nag agenda LGBT moo bindoo noo xam ne dëkk bu mu dugg lëmbee ko ndax ñi ko gàddu dañoo bëri doole bëri xaalis ñoom ay état la ñuy jëflanteel ba pare dañoo bëgg a légaliser affaire bi mais ñooñu booy wax ak ñoom foog coow li bare loolu rek la su ko defee loolu ñu ngi leen di ña jëfal mhm. waaw kon ma daaneel jox si sëñ Adama ñu may ko benn point bu mu leeral beneen bi ci des ñun amuñu problème ak nguur ñun ñu ay opposant nekkuñu opposant wu kenn nguur gi fi nekkoon ñun nekkuñu woon opposant wam te mësuñu nangu nekku opposant wu nguur googu xëy na nag ñoom ñoo ñu jàppee opposant lu tax ñun ab loi la ñu yor ne nan ñu voteel loi bi ñu jox leen ko ñu rejeté ko ñu joxaat leen ko ñu rejeté ko ñu woo askan wi wax leen ko fii la ñu yem élection mësul ñëw ñun ñu wut candidat dem élection benn coalition mësul toog ñu mobiliser wu ne voté leen coalition tel kon kay mosuñu woon na nekk opposition mais nag ñoom ñoo ñu jàppee ay opposant moo tax tey ñu bëgg ñu wax ne opposé leen ñii fi nekk ñii fi nekk defaguñu lu tax ñun ñu war a génn ci mbedd mi te wallaay bis bu ñu ko defee gis ñu ci mbedd mi bis bu ñu defee li ñuy defoon ba yegg si fii ak ñun tëral agenda LGBT di ko doxal ñëpp teg ci bët ñu def nañu daan def ak ñii ci mbedd mi ñaanuñu ko yàlla parce que jàpp nañ ne duñ fa yegg kon ñun amuñu lu ñuy ragal ci àddina amuñu ku ñuy par parlool ci àddina combat bi yàlla lañ ci xool ñun am nañu suñu objectif ba pare wa ma ala rasul illa al diine boo ci nekkee di yëngu action boo def yàlla fay na la ba pare boo jotee objectif baag boo ko jotul yëpp am nga yiw ñun wutuñu post wutuñu député wutuñu ministre wutuñu maire wutuñu présidence wutuñu dara ay valeur la ñuy xeexal ñun mënuñoo perte dara déjà yàlla moo ñuy fay kon ñun amuñu benn pertement politicien bu ci jóg tamit jël ànd sàmm jikko yi def ko sa adversaire di ko xeexee ci plateau télé yi di dem ci terrain bi lenn dong nga ciy jëlee say nawle ñu la duma ci élection parce que ñun élection wuñu te yow ñun ngay xeexal élection yow dem ñu gañe la jël leen politiciens yi ñooy seeni adversaire ñun sañ nañoo revendiquer ay jikko ku ko mën kaay def ku mënul demal nga toog fii la su ko defee yooyu ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax di leen jaajëfal bu baax nag jaajëfal président ñun li tax euh, sori wuñ ci polémique bi mu jur Jean-Luc Mélenchon tontoom war nga këpp ñëpp xam nañ ne moom dafa def apologie homosexualité mais Ousmane Sonko discours bi mu def lu bare ci askan wi dañ ne doy na leen sëkk au contraire dañuy wax sax musuñoo dégg tontu bu rafet yi ni am ñoo xam ne nee nañu tontu bi doyu leen loolu askan wi ñoo koy jugé moo tax ñun ñu jàpp ne comme tontu bi am na ñu wax ne c'est bon baax na moo yi mu utiliser am na ci moo yoo xam ne ñoom dañ jàpp ne sax dafa ëpp dem na ba di ko yemalee guerre am ñoo xam ne nee nañu moo yi dafa am na ci moo yu leseer cest kon loolu gis-gisu askan wi la moo tax ñun ñu jàpp ne position bi ñu ci am mooy lam ñu digoon la ñuy xaar. moo ñu digoon ne ñoom bis bu ñu yoree nguur gi xëy na bu ñu amee majorité daañu voté loi bi foofu lañ koy xaar te am nañu yaakaar ne dina ko def parce que xëy na jàppuñ ne bokk na ci politiciens yi nga xam ne day def politique politicienne rek digge pour falu yaakaaruñu ko moo jëlal boppam engagement toog ci télé ne dinaa ko def léegi toog ne ñi ngi koy xaar bu amee majorité ba xam dina ko def beneen bi ci des baal ma une minute ma leera loolu mooy am na benn vidéo wu Euh, premier ministre Ousmane Sonko buy génn donte booba sax opposant la woon noté na ci ay points ñu bëriñ ciy def erreur di wax ne Ousmane Sonko dafa signé dafa signé loi bi avec réserve c'est-à-dire kon ñi ngi bëgg ubbi bunt bu ëllëgee mu ñàkk jàll déedéet loi bi signé ko ak réserve petition lañ ko yóbbuloon pétition la ñuy signé mais loi kenn du ko signé pétition nag seen normal bu la neexee nga signé avec réserve parce que gisagoo loi bi clause yi mu ci def mu signé ko réserve avant deux mille vingt deux la woon loolu mais bi ñu demee ba deux mille vingt deux mille vingt deux ñoom bi ñu gañee élection yi loi bi ñoom ñoo ko yóbbul seen bopp loi bi coalition Yewwi Askan Wi moo boolook ñoom Mamadou Lamine Diallo ñu yóbbul loi bi voté ko vidéo Birame Souleye Diop mi ngi fi kon état boobu passé nañu ko état bi mu signé woon euh, réserve ca pétition ba la bi ñu tëggee loi bi ba pare ñoom bi leen ko joxee ñoo ko xoolal seen bopp ba mu doy leen ñu yóbbul ko seen bopp assemblée coalition Benno boleke ko kon état boobu passé nañu ko signé réserve amatul uh-huh. waaw pétition ba ba ñu koy seeti député la mu diggee woon ne moom dana bokk ci ñuy liggéey ci loi bi loola nag xëy na ñoom sëñ Babacar xool nañu est-ce que bokkoon na ci biir ñuy liggéeyam déet xaw ma mais bi ñuy voté waat bii nii nekkul député waaye nag seeni député ñoo ko porté ànd ak ah kay ah kay nekkoon na député nekkoon na député bi ñu koy seeti nekkoon na député ci pétition bi mu signé ko wax ne dana liggéey ak député ya fa nekk ci loi bi. nan lañ koy tëggee parce que nee na moom def na droit xëy na dana mën a jàppalanteeg ñoom ci yenn clause yi sew yi am mais nag bi ñuy dugalaat loi bii moom fekk ko moom mu nekk député waaye nag seeni député nekkoon nañu ko waaye ànd ak loolu yëpp du ñu dañ di gërëm tamit ma du Lamine jàlloo ak ñim ci àndoon ak Mamadou Lamine Diallo depuis ñu tàmbali ca bopp ba la nekk te man xaw ma lu tax ñiy cité ñu ko cité. bu ñuy takkal ànd sama jikko yi dañ naan ko Ousmane Sonko mais tax duñ tudd Mamadou Lamine Diallo te dafa liggéey ci loi bi lu rëy loi bu njëkk ba ak bu mujjee bi yëpp loxoom daa nekk ci biir su ko defee yooyu bëggoon nañ ko leeral